salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi tey jii nag revue de presse bi oustaz Mohamed Konté moo leen koy may Mohamed Konté mii nag ku yàlla baaxal la di yëngu ci mbiru ñaan yàlla maanaam ku ci am tawat sax ci sa yaram boo ko woowee rek moom dina la ci jàppale dina faj hémorroïde ballonnement ba ci ndoxum siti wala nga néew kattan wala sa néegu sëy am jafe-jafe boo ko woowee incha allahu rabbi dina la jàppale ci loolu te ay mbiram seerut ku yàlla baaxal la boo ko woowee ci 77 330 17 58 wala 70 796 24 89 numéro yaa ngi noonu boo ko woowee rek incha allah loo ci bëgg rek dina la ko defal ndax ku yàlla baaxal la ma nga ca géeje waaye rond dalal jàmm vidéo bi sax dinañ leen ko jox ci njeextalu revue de presse bi lundi 6 juin 2022 ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi tey nag férié la benn journal Sénégal ñëwul dañ koy dooree Londres Angleterre fekk fa Star Sport Gareth Bale la fësal ca xët wu njëkk wa waaye journal bi daf koy tagg nee na ponkal maa ngi nii di Gareth Bale ndax moom moo boot waa Pays de Galles ngir ñu dem ca coupe du monde ba loolee nag gëjoon na am 64 ans après juróom benn fukki at ak ñeent pays de Galles tegul tànkam ci coupe du monde waaye mille vingt 2022 kenn du leen ko nettali li leen ko may nag moo di ndam li nga xam ne Gareth Bale jox na leen ko Gareth Bale moomee sax ma ngay wax li mu xam le moo di ndam lii nag pays de Galles mosul am ndam lu rëyee nii te bég naa ci lool waaye wax na tamit ci ëllëgam li mu xam le moo di moom su fekkoon dëkkam demul ca coupe du monde ba day tekki ay godaasam bàyyi football waaye comme dëkkam dem na ca coupe du monde ba faaw mu wut beneen club mën a wëyal Bale kon nag Gareth Bale mii dina wut beneen club ndax nekkatul sóoru Real de Madrid contrat jeex na tàkk foofee Gareth Southgate may tàggat Angleterre it mi ngi ci journal bi ñoom nag ñi ngi waajal seen match bi suba ñoom Allemagne la ñuy fekki match boobee 18h45 lay door waaye Gareth Southgate la mu xamul supporter ya moo di bu ngeen demee ca Allemagne nag li laay war a suul yi bu fa kenn xulo bu fa kenn xeex Allemagne ak Angleterre dañoo jubawul maanaam seen diggante rataxul lool te anglais yi moom ku leen wokkuñu xuri la moo tax Gareth Southgate ma nga leen di ñaax neex nag moo di ñoom euro 2028 dañ koo bëgg a organiser te suñu xeexee foofu rek waa UEFA mën nañoo wax ne ñii kat nitu fitna lañu kon kenn du leen jox euro bi ñu koy organiser ndax li amoon ca France kat loole avertissement la maanaam loolu nga xam ne amoon na ca finale Ligue des champions ba loolu nag la Gareth Southgate di bañal réew Angleterre moo tax ma ngay ñaax supporters yi ne leen même suñu leen saaga sax baal leen ki leen saaga ñun daal bëgguñu coow ca match boobee ñu jugee Londres ñaareelu match bi nga xam ne moom la France di amal tey jii ci digganteem a Croatie loolee mi ngi jëm ci Ligue des Nations waaye France la ñu bëgg moo di am ndam ca match boobee waaye nag équipe boobee gàllu góose na ndax bëri na ñoo xam ne wóoragul ñu bokk ca match boobee am déet te ay punkal lañu tey jii nag la ñu bëgg ñoom waa France moo di dóor ñii di waa Croatie nga xam ne dinañu am taxawaay bu baax ca poule boobee ñu nekk William Saliba it mi ngi ci journal bi moom nag défenseur la ca Marseille waaye waa Arsenal ñoo ko abaloon Marseille te Arsenal nee na daf koy nangu wàññeewul ba léegi li mu bëgg moo di jënd ko ca Arsenal te ña ngay dox ca loole ñu jugee France wutali Portugal fekk fa Abola Cristiano Ronaldo la fësal ca xët wu njëkk wa raykat la ne démb ñoom bi ñuy jàkkaarloo ak Suisse doomu Portugal bi dafa doxal dugal ñaari bit ca match boobee match ba jeexee ñeenti bal ci dara jamono jii nag ñoom poule ba ñu nekk ñoo ci jël pee ndax Espagne ma ñu ko bokkal dafa def match nul ñaari bit yooyu nga xam ne Cristiano Ronaldo dugal na ko nag moom dellu na ko ci li ko waral moo di jamono ji am na ci équipe nationale bu Portugal téeméeri bit ak fukk ak juróom-ñaar Alidé nag moo topp ci kaw Cristiano Ronaldo te Alidé bàyyi na football Alidé cent neuf bii la am jamono ji Cristiano Ronaldo huit bit la ko rawee kon daal kuy takk godaas di défendre sa couleur réew Cristiano Ronaldo moo la ëpp lu mu dugal ci ay bit jamono ji nag Cristiano Ronaldo kan moo koy téye ak kan moo koy dab loolu moo samp comme laaj ñu jugee Portugal wutali Espagne tey jii nag Espagne seen journal yi yépp ci li ñu wax moo di final Roland bi nga xam ne seen doom di Rafael Nadal moo ko jël waaye nag fàttewul football bi ndax équipe nationale bu Espagne dañ doon football ak République Tchèque démb match ba nag 2-2 la jeexee ki leen sauvé nag moo di Inigo Inigo kat bu nekkuloon ak moom rek lambay ñaaw ndax ca cëppaandaw ga ci la égalisé ñu jël aas yéene kaay moom it ci final Roland Garros bi ca la ñëw waaye nag ma ngay wax ci capaacolik Barcelone gii muy Gavi démb bit bi Espagne njëkk a am Gavi moo ko dugal bit boobee sax tax na a boo xam ne équipe nationale bu Espagne moo koy football kon dugg na ci taarix waaye tamit match boobe Inigo Martinez ma leen sauvé mi ngi ci journal bi di aas bu nekkuloon moom rek làmbaay ñaaw ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa Esport Esport it ca final ba la rek muy final Roland Garros bi waaye fàttewul équipe national bu Espagne démb nag am nañu benn poñ ba ñuy jàkkaarloo ak République Tchèque waaye mënoon nañu am lu gën lool loolu la journal bi xamle match nil boobee ñu am nag nañu ko sante seen défenseur bi nga xam ne moo tax ñu am benn poñ kon daal Espagne démb sëngéem nañu ndax jamono jiikat deuxième la ñu jël ci seen poule ndax Portugal dafa gagné kon Portugal moo jël pee ca poule boobu Mundo Deportivo wi tey daanaka waxut ci football bi ci seen doom jii di Rafael daal ci la wax moom la fësal noonu sax ci xët wu njëkk ñu jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport ñontool la fësal ca xët wu njëkk wa gone gii nga xam ne doomu itali la keroog bi Italie di jàkkaarloo ak Allemagne deuxième mi la ñu ko dugal waaye fulla ju mat sëkk la wane ca biir terrain ba loole tax na nag ñëpp nga daw wutali ko ca club yooyee nekk foofe ca Italie Fiorentina ma nga ca Sassuolo ma nga ca Monza mi nga xam ne dafa yéeg ren jii ma nga ca ngir jënd ko waaye nag yemul ci club yooyu nekk ca itali Allemagne tamit ca Bundesliga ba club yu bëri ña ngi koy bàyyi xel ci fàttali gone gi ca championnat bu Suisse lay football ma ngay football ca FC Zurich waaye gone gu football am yaakaar ci moom la Mourinho nag ma ngay waaja a am Matisse loolee la journal bi li mu xamle moo di daanaka juboo am na na ngir doomu Serbi bi ñëw foofee jàppale José Mourinho ñu jugee Corriere dello Sport dem Torino fekk fa Tuttosport Ángel Di Maria Paul Pogba la fësal ca xët wu njëkk wa ñaar ñi nag mënuñoo xaar la ñu bëgg moo di indi leen léegi foofee ci Juve ndax kat jamono jii waa Juve ña ngay duñ duñi def nañu sax ab réunion ak Maximiliano Allegri ngir kat ñu sottal seeni mbir ñaar ñi ñëw ci fàttali ay agent libre lañu da waxaale ak ñoom rek li nga leen di fay Madrid mi ngi ci milieu de terrain wu Juve bii di Rabiot United la mu bëgg moo di jël Rabiot yóbbu ko foofe muy doxal ñu jugee Torino wutali Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Rafael Leao la fësal ca xët wu njëkk wax xolam nag jox na ko AC Milan gone gi foofee képp la bëgg a football waaye nag waa AC Milan ña ngay fagaru ca loole nga xam ne doomu Portugal bi kat du leen rëcce waaye Maldini mi nga xam ne mooy seen directeur technique li mu xamle moo di bëgg naa la lool nga des fii ci club bi bëgg naa tamit ak bi nag dafa am fu may yem ci wàllu salaire club bii dafa am nu muy doxee te loolee bëgguma koo soppi ngir benn jour am na nag loo xamante ni man duma ko def yenn salaire yi moom duma la ko fay ci fàttali gone gi club yu mag dañu koo bëgg ku ci mel ni mën sa City ma nga ca Real de Madrid ma nga ca nee na ko na club yooyu su fekkee ñoom dañoo ñëw di concurrencer maanaam indi salaire bu bari bëgg la koo fay man loolu du tax ma def lu ma mënul salaire bi ma lay fay daal dafa am fu mu mën a yem waaye li ma gënal daal moo di nga toog fii ndax bëgg nga club bi club bi bëgg na la sa njëriñ ci club bi kon toogal fii liggéey ak ñun fële ci yuufe moom mbirul de laayit ma ngay wëy di taga témbe waaye yuufe dañoo bëggoon mu xaatim beneen contrat waaye loole kat demagul céng dikkagul mbaylaar waxtaan ba soreegul loole nag tiital na lool waa yuufe li ñu bëgg moo di mu xaatim beneen contrat seen xel mën a dal waaye waxtaan ba daal soriwul kon daal jamono jii yuufe la mu bëgg moo di de di seen defenseur ñu xaatimal ko contrat mu wëy di doxal foofe gaa ñi yëf la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah. pour nga moytu ko day jafe waaye nag am nañ ci yoo xam ne boo ko defee rek euh, képp ku la ci jéemal dara pour lu bon rek yàlla dala koy wan pour nga mën kaa moytu mën kaa éviter kaaraange daal am nañ ci yéeme yuñ ciy def yoo xam ne moo xam jigéen la moo xam góor la moo xam mag la moo xam ku mën a doon buñ ci jëflante yàlla mën nañ cee mën nañ mën nañ cee defal mën mën na mën nañ ko cee defal loo xam ne dana ci kaw a njot waaw kon euh, mi ngi noonu tey tomb yooyu lañ leen indiloon euh, ñu ngi tàggatoo deneen wax ne dinañ ñëwaat ak beneen façon ak beneen waxtaan dinañ ñëwaat euh, te li ñu tax a jóg rek moom mooy dimbalante ak yàlla ndax ñun xaalis taxuñoo jóg waaye li ñu tax a jóg rek mooy dimbale fexe ba jaamu yàlla yi ñi feebar ñi faju ñi wéradi ñi wér ñi am problème ñi fexe ba seen problème dañ ñi nga xam ne dañu am problème seen néegu sëy ñi fexe ba seen problème yee jeex ñi am problème kayit ñi fexe ba seen problème yee jeex ñi am problème wërsëg ñi fexe ba seen problème yi jeex parce que dëkk bi dund gi cher na pour nga mën a dund force nga am xaalis kon boo amul day métti kon euh, ñu ngi tàggatoo foofu daal di wax ne képp koo xam ne bëgg naa jëflante ak ñun boo ñu wooyee ci numéro yooyu noonu dinañ jëflante ak yow dinañ wax ne seen mbokk la oustaz Mouhamed ñoo ngi ziyaare ñëpp di baalu ak ñëpp di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu